Doudou Diaw de chauffeur tek ci garde du corps bu député maire Farbangom ay xibar dal suñu kaw xamal ñu ni moom Doudou Diaw mooy présumé voleur bu Farbangom Ngom ba mu sàccee bi ba nopi mom ci bopam mo wax enquêteur yi ni 60000 francs kese la doon jot comme salaire waral mu am ay soxla yu laaj ay copar yu xawa takku ba mu yóbbee ko mu yor loxoom fa patron wam di denc xaalis bi ci bir kër gi di sàcc nañ alalam ci la dem section de recherche bu Koloban ngir ñu tek loxo ki def jëf ji bañu ko arrêté mom Doudou Diaw firndel na ni jëlul lutul 300 millions francs CFA daal di jël 160 millions yi jox ko ab xaritam bo xamni ne fi mu toll nii daa réer kenn gisu mu tollu ci ne la dess ci xaalis bu jotoon ci jënd ab terrain ba Gàmbi ba ne sax fofu la laqatu won mu waxit ni jotna ci jënd ay voiture ak i matériel jëf ji mu def waral fi mu ni mu mujjee nañ ko placé sous mandat de dépôt